ginnaw bañ sante yàlla ñun ñëpp téwon nañ ci taw ñaanon bañ ñaan yalla ne ko yàlla nañ ci wër yalla ci kàttanam ak ci mbaxam yalla may ñu ci téral kon lolu dañ ci sant yalla julli ci sang-sang yi yaakaari yi ka sama tomo waxon ne ko alfal waraa woomu am yun fa anfusuhu min sunnati jahlin bi taalimi li diina mu yonti yàlla muhammad bàkkaat suñu sëriñ tijaani baabulaay bahsatu kër fii wa baada rasulullah misaalu kalam yu lëg kooku mooy kan famin ayni ayni ayna al inaayati ashba cheikh fi fard al mufradi kooku mooy sidi ahmad tijaani bàkkaat suñu sëriñ ma alaaj Abdoulaye Niass wa qaysun wa ba'da muhit iza bada fala kawkabu yabni siwaun wala samsu kooku mooy alaaj Abdoulaye borom Sénégal ak Gambie bàkkaat suñu sëriñ borom jàmm ak borom quatre-vingts ans fët waa ji ne ma sa tooma mooy borom bis bi ma ko bis yëpp maam xalifaay borom <laughs> mooy borom bis yëpp bis yëpp ñàkk xam li ñu war rek waaye bis yëpp sam xalifa képp fi des te bis waaye waxkat bi léegi dana na ma daf maa wax léegi ne ma fukki minute ak ñaar moo des ñaan nag du fi xaj waxtaan du fi waaye dama leen di tànnal leen waa jotaay bi ndax ma ñaan wala ma waxtaan waaye nag ñaan yi may def man Mouhamed Khalifa ne ndigal laa si am si maam Khalifa Niass xam yéen may déggam déet da ngeen may wax seen soxla ma wax ko sama toomaa yàlla faj kii ba ndox ma kii rek koy wax loolu nag lu yàlla dogal la dama jàng ba bëgg a dee mënuma xam dara dama jàng ba bëgg dee mënuma xam dara ma téye ismu laay laxsam su nit ñi jàngee ma tëju téye ismu laay laxsam nefa nesa nesa sa coof ak nesa ba sama toma ne cëpp monte ma courant dox ma may maase barki Seydi Ahmad Tidiane li may wax du ma saa waay li may wax du maas ma courage jox ma ndigal may maas loolu tax ne leen ma jàkk te bu ma piisu ku ne ma jàkk yàlla faj saaj barki Seydi Ahmad Tidiane dama dem euh, jokkul mal bu dégg teg sama saa góor gi ne ma benn góor ñëw ne ma yaay Mouhamed Khalifa Niass ma ne ko man la lu may wax rek damay indi dalil pour ngeen xam waaye nag li ma si jaaxal dalil yi muy andi man Mouhamed Khalifa yow kum neex gëm kum naqari nga ñàkk gëm waaye man li ma wax dara du ko di gi andi kilo suukar ne ma yaay Mouhamed Khalifa ma ne ko waaw mu ne ma am maam Khalifa Niass gis naa ko ñaari weer mu ne danga fi ñëw te soo ñëwee naa jënd kilo suukar jox la ko bu ma ñaanal xool ma rek yàlla faj sama aajo bam ma ko waxee laa ne ko ci maqamu la tollu toll deelaan ma jàkk yalla di faccaraale ci barke mam khalifa ñoom wa tan gulen de waxkat bi nee na ma dama ne ko daf ne ma léegi ne ma fukki minute ak juróom mo def ci salatu maleni leen di laaj nag ñaan wala waxtaan tànn leen si benn ma wax balaa ñuy delluwaat ñu koro bi ndax du tardé si maam. soxla yi soxla yi dañoo bëri ñaanal. dama ne ki nga xam ne moom lañ tàntal fii muy xalifatul Haaji Muhammad dama ne Serigne Mor Sang dafa tëdd si néegam man xalifa ne moom ànd ak moom mu ne ko sëñ bi foo ma jëmee doy na maam xalifa ne ko paree guma si yow mu ne ko palal si man mu ne ko paree guma si yow ànd ak moom ànd ak moom bay gi soppeeb yàlla ba ne ko cëpp ne ko góor gi loo gis mu ko fii de lépp lu ma fi gis ñu ngi si bind allahu nuuru samaawaati wal ard maam xalifa soo ko xamul moom la alaaji moor jaane xoolal bam neex ko ne ko haza faqran wa haza سباق بعلوم ورتبة وقلائل dégg naa léegi ci internet bi ba ma toogee di wér de sama néeg sëñ Omar mu baax mais naan lu fi tàkk lu ne maam Khalifa ka taaree jàpp ma <laughs> gaa yaa ngi commencé nante de man nag li may wax waxuluma ma Samba waxuluma ma Demba man sama toma képp laay waxal ku ku bëgg leneen nga wut keneen ku la waxal man sama toma rek laay waxal kooku moom day leer man si ndimbalu maam Khalifa Niass si lay doxee looloo tax bi du changé wu système du changé si ndimbalu Baye Khalifa Niass si dox waaw yal na yàlla faj ah, de chaque année nii yal na yàlla faj sa aajo si barke maam Khalifa Niass incha allah yàlla dana la roog wér maam Khalifa lu mu waxoon yàlla yàlla def ko danaa wax sama tooma mu loox la barke Seydi Ahmad Tidiane dama ne alaaji Mor Diané moo wax loolu maam Khalifa Niass maam Khalifa moom rek si ñu ku ak ñu ku weex loo tax bañ fa laajee na ko yaay kan mu ne xan naa la minhum maqaamaati muqimaati adresse bu la joxe xan naa la minhum maqaamaati muqimaati waaye dalal ta ahla samaa'i ما كان قربهم كما ضللت للجن جنس إنسانا كان كما ملاك يدي كنت بيب يلا بدي ور يلا كما يكون سمعت ما مولا كما يلا أولاك مولاك ما لا يقصى يغرف من المواهب ولا يفعل والعفال مأوانا صار الحوائم تختص يكميوها هلانا وهكذا إسفالا وإحلانا دلت أهل السماء ما كان قربهم كما ضللت للجن جن إنسانا ay borom kan ñoo fi ne lu may wax dama indi dalil man na waxtaan man na ñaan gëstu damay ñaan damay xaat ñaan mo mooy ma yalla yalla fa saaju jeex la man nak dama naan ni dama lay garantie ci barke maam Khalifa Niass nëbb bi ñu toll war nañ ka dépasser nëbb bi ñu toll maam Khalifa su xëyoon xol jant bi ne ko boole Cheikh Tidiane day bloqué wu barki Seydi Ahmad Tidiane loo tax wax naa ko ñu Omar Sall léegi si ma ne leen réew maa ngi yëngu waaye su ma neexee lu bëri mën naa koy bloqué fii ma toog wax naa leen ko si néew ah, yi ne rek pour mu eggali ñu si yàlla ñu jël réew mi delloo ko borom dëgg mu baax réew mi maam xalifaay borom dama ne sama toomaa mooy borom réew mi dëgg mu baax suñ jëloon réew mi delloo ko borom réew mi konoon coow du am si réew mi waaye coow li lu ko andi yëpp ñàkk nangul maam xalifa ñas képp la du dara ñàkk nangul sama toomaa képp moo andi coow li te dana fi yàgg de dana fi yàgg de dama ne suñ nanguloon moom Khalifa xool koo xam ne suñ ko joxee réew mi réew mi dana dox wàllu transport wàllu santé wàllu économique lépp koo xam ne dañ koy mu ragal yàlla man ñee si yàlla te ñëpp nangu ko suñ xoolee Khalifatul Haaji Mouhamed doy na wa wa waahidun man lam yakun fi dëri lam yafqahu fa ka annahum lam yude nga ne ma loolu loo tax keroog maa ngi wax daaw bañ ba wax si Khalifa mané vidéo yi tassaro ben sama doomu nday ooma nan man nañ mana génn Ibnu Malik ma ko Ibnu Malik ak yalla yalla pàccaay yalla yalla pàccaay yow waaw inshallah waaw ñaan dana ci ñew waaw inshallah allah dana ci ñew si dana ci ñew uyu ma dama ne waaw la ko yàlla defal si barke maam xalif mu naan ibnu malik ma ne ko ibnu malik rek may ma tuuti daaw dama fee wax ne eh man nag jooni li bëri ku dul maam xalifa ñas gëm wala de ay ibnu malik ba ay buse man man maam sama tubaab képp laa gëm ah, leer de daaw wax naa fii ne ba ma ko waree dama ne moo vidéo yi ñuy tas am sama benn waay sama benn doomu ndey nekk sa moro xoromu lool dama nen si génn Ibnu Malik ma ne ko Ibnu Malik ak Busayro Kaab ak ñoom ñëpp sama tooma seenuñ pënd maam Khalifa Niass déglu leen bu baax Abdullah ibnu Rawaata Kaab ibnu ñoo dàqoon a tagg yonent yàlla Muhammad dëgg la wala déet maam Khalifa Niass nee na ñooñu lu ñuy mën a mën a tagg yonent yàlla Muhammad man maa leen dàq tagg yonent yàlla Muhammad te man Khalifa am naa cër boo xam ne ba ilaa yawmi din cër boobu dafi sax inni la am zin balaasani madaakum asaya uxsa bil ajri xayri mamun inna man yabtaqi sibaqan bi shawi fi lmadinati muxtaari ay juhali képp kuñ may tëkkalanteeg man xalifatul aji Muhammad si bëgg yonent yàlla Muhammad si tagg yonent yàlla mu ak koo mën soo yëgee ak soo yëgut dangaa réer saa waay buñ fi nekk naan mooy borom première yi première yi sama tooba bam naan mooy première booba ñu ngi sa alamul arwa sa alamul arwa la sama tooba yëg li yàlla def ci moom mu yëg kim doon تخاو نا وايقن الكل وايقن الكل اني امام في الهي مام خليفه نيكو واخ وهو قادم للحضرتين وانهم اعلى مثالا في محبه احمد وهذا لن توك بس كان مجين اللي جات مجين اب لي جات بو نيك مام خليفه سي جيم مام واخ غاينا لا لي جات بي دا ما كا جودو عليه wax gaay ne laa xam nga jingat kat yi rek mu ne leen ku wéddi li wax laajal sama yaay ñi dem laaj yaay mu ne da ngaa juddoole de mam xali baye sax xare dar bokkoon naa sa ñay teex man laaj waa ji ne ko moo doon kan waa ji ma xulli bëtam ma ne ko mooy kan ah ñun parce li am xamuñ ko ñun ñun li am xamuñ ko nañ bàyyi complexe te wax li bi na muy xalifatul Aji Muhammad dañ kaa gëm ànd ak seen détermination wax naa ko fii nee naa man ñëpp suñu bàyyi maam Khalifa man kenn rek du ma teree coow du ma teree sant ko du ma teree liggéeyal ko loolu mooy man amoo benn soxla si àddina liggéeyal maam Khalifa rek loolu képp si laa nekk parce que Seydi Ahmad Tidiane waaye maa ngi yokk si baatin maa ngi yokk si saayir est-ce que da ngay dégg damay wax ne maam Khalifa bam naan wa xanal kullu anni déglul ma leeral la ko nga dégg li may wax yàlla moo teg ruuya sa alamul arwa nan arastu bi rabbikum ruuyam ne teg baay amut bàjjan amut yaay amut ni yaa dara amut ruu yëpp doon abdal yàlla ne arastu bi rabbikum ñoom ne teg ruu Seexu Tijaan moppe ruu yoon ci yàlla ne ko maam suñu fi yàggee yaa fi yàggal yàlla yàlla faj saa moo wax am naa ñaari moom xalifa ñes waaw macha allah xalifa ñes laa gëm yàlla sa alamul arwa sa alamul arwa am na courant bi ko commencé maas waaye bàyyi ba ma jóg rek waaw waaw li bi ko commencé laal am naa courant sëriñ bi am naa courant nga laaj ma boo jëlee sa courant Mouhamed ma ne man courant bi ma Cheikh Tidiane moo monté sama tooma courant maam Khalifa monté ma courant xaw ma ñu rek may déggam déet ah ba yi ma nekkoon ak daara ja man ba muy commencé yàgg na de sa daara ja la maire yaa sëy da doon ñëw teg na ma ñas na jar ma ne ko jox ma ndox mu jox ma ndox ma ne ko barki sama tooma pëp na ko wisal balaa mi di trente garanti naa ko man ku xamul maam Khalifa man xam naa ko gëm naa ko lu ma bëgg def si laa koy def léegi nag saalamul arwa la ruuxu yonent yàlla Muhammad ruuxu Seexu Tijaan bi ruuxu yonent yàlla Muhammad ne ko man suñ fi yàggee yaa ñu fi yàggal mu ne ballaa loo tax ku la raw fii foofu la la rawee saalamul arwa nag la alaaji Abdoulaye Niass xool xalifatul alaaji Muhammad xam ne kii yàlla lam yor yonent yàlla lam jox yonent yàlla Muhammad jox ko Seexu Tijaan yàlla jox na ko loo xam ne ku dul moom amoo ko est-ce que da mooy dégg te wan arwa nag maam xalifa ñu wax ne kër bi yamini bayna qawmin man saqa um saqaani allahu akbar kon xam ngeen ne kon bañ nekkee sa alamul arwa kaas ba doon góoru yàlla yi di naan seen wilaaya ak seen maqaam ak seen daraja kaas boobu keneen ko doon sotti sama tooma wa adarat ra'atuha ra'a minni dawara naa kullu hamid kon maam xalifatul aaji Muhammad yal nañu ko yàlla fayal réew mi coono yi bëri na waaye suñ delloon si hangi min ash-shaykh maa law kaana yuxrifu ahlul bilaadi at-tawni duna taxmini konoon lépp dal su ma ne xalifaay borom réew mi soxlawut falu àddina waaye nañ ko ñi ne si réew mi nañ ko nangul cëram waaw nañ ko nangul cëram Senghor maam Khalifa ko fal ci doole Cheikh Tidiane Ablaye Wade noonu Macky Sall mii na kujj noonu waaw waaw waaw ah, waaw waaw li may wax day na xaw ah, ah, ma altigal 80 article quatre-vingt ah ñooñu ñu faalu ay article parce que xalifatul Haaji Mohamed lu tax ma wax la lool réew mi lépp lu fi baax lépp lu fi dox lépp lu fi leer ci barkem ci la doxee Senghor maam Khalifa ko fal Senghor daa dem Sokone dem si alaaji amul dem na ko alaaji amul dem mu ne ko mu ne ko ñaanal ma jël réew mu ne ko kan moo ne si réew mi te su waxee yàlla yàlla def mu ne ko maam Khalifa Niass moom alaaji moom Senghor laajaat ko ne ko kan moo ne mu ne ko maam Khalifa Niass mu jege ko ne ko alaaji Amadou Dem kan moo jiite xutbu yàlla góor yàlla yëpp mu ne ko maam Khalifa Niass mu daw ñëw lew na fekk sama tooma di naafile ba paree mu egsi mu ne loo soxla mu ne ko góor nëbbu réew laa soxla mu ne ko kan mu ne ko maay Senghor mu ne ko démb laa jugee diwaan dañ ne wii Senghor démb laa jugee diwaan dañ ne wii loo tax feebar bi ba amee ñi opposé ñeseen ree jàpp ma ko ma gis ñu nekk sa xadara ba di jàng bay seexoo ngañ di tuuru di jàng bay seexoo ngañ di tuuru ma ne leen yaa ngi xadara bii xeebu na si saayir waaye buur si àddina bi yëpp suñ dajoon mënuñu leen a nokk وقصني بجيوس النهر تعفتني والوالدي وأحبابي وأهاني waaw nag la ma si wax man moom sama wax bëriwul toog na ah toog naa rek wax gars yi ne leen ay kii bi jeex na nguur gi jeex na toog naa wax gars yi ne nguur gi jeex na. lan la lu jeex. nguur gi. nguur gi. boba la day wa gaane nguur gi jeexal Abdoulaye Wade ba muy daanu Abdoulaye Wade ba muy daanu Abdoulaye Wade ba muy daanu ñu nga fekk buun sa Dakar Macky Sall Abdoulaye Wade ba muy daanu man duma ko wax waxu koye lool talu man limay yeen mam Khalifa mako koy na leer de man lijjantiwu ma ku ma jox ak ku ma teral ak laa ne képp a yemale ku ma déglu ak ku ma ñàkk déglu man malaaka yi sax su may ñaan may déglu barki si Ahmad Tidiane kooku moom na leer man soxlu ay ay bës ak ay nangam loolu sama yoon nekku ci man sama tubaab moomu nuqi sa daara ja teg ma ma fajal soxla barki si Ahmad Tidiane loolu tax keroog ba ñuy wax ma naan la nii sama loxo nga naan dégg nga tàmm sama mbagg li nga xamul lu xew waaye boobu suru maam Khalifa laay su ma nee la nii rek nga jóg. <laughs> barki Seydi Ahmed Tidiane. barki Seydi Ahmed Tidiane. waajama waajama ko defoon sa siyaare lew na ba mu ñëw ànd ak yaayam ak baay ñu ne ma tukki lañ man damaa ñeme engagement de fi ma toog si néeg bi laa génn toog si veranda bi waaw yàlla nañ ko bàyyi si doole Cheikh Tidiane dañ si def ñaan bàyyi suñ commencé ñaan rek nga ñëw incha allah waa ji ànd ak baayam ak yaayam ñu ñëw si siyaare bi ne ma yow rek yaa ñu gëndi ne ma tukki lañ bëgg si néeg bi ma toog damaa génn dem sa veranda ba ñëpp gis ma meeree ñëpp ma wax waaj na ko tàllal muy tàllal may ñaan ba si kanam may jooy ma ne ko yow de insha allah waru naa si barke Cheikhou Tidiane sama morom ngay ma ko waru naa si doole Cheikhou Tidiane xaw ma kan waa yow dem nga réew ma benn dimanche lañ toog mu mujj mel na moom ci lim ñëwee wax eh, ñun de jaaxal ma leen da <laughs> man maam xalifa courant bi moom maa su ko moiso abi dama ne indo wala indien bu nekk réew ma sax kooka du tere lu mu wax yàlla yàlla def xam nga na a ngi may déggam déet benn dimanche la ma moom la toora ooma ne ma maa nga réew ma Ahmed mii dem na benn dëkk si Gàmbi ñu ne ko si daate gee da doon fees dell ay nit waaye mu am maam Khalifa Mouhamed Khalifa ba mu fi ñëwee garaay escorte ko yóbbu ko jumaaja mu waxtaan ba tàng ñu ne ko réew ma maam Khalifa danee ñuy tànki rippi si suuf ne ropp naa fi siru réew ma Ahmed a nga nii du may fan kon mbir mi du xalifa mu maam as mbir mi mbiru maam xalifa la barki Seydi Ahmad Tidiane man nit ñi yéem ma ñi ñàkk maa yéem laa ne képp emale man moom su ma desewoon benn nokki si àddina ñu ne ma na nga lancé sa nokk yi mujj looy wax looy bàttale nañ bëgg maam xalifa ñas dem xay barki Seydi Ahmad Tidiane waa ji wax na ba léegi ma kontaan lool dee na ko talaale wax naa booy yi may ma ne leen su ma dee woon sax gars yi teg ma leneen lu ko nit wax lu dul ku bëgg a am lool sa waxu bopp képp si gën a li nga wax yow la concerné <laughs> man dama kann su de maam xalifa mi bëgg dama dee kann su <laughs> bokk maa gars nga xam ne fu approvare ñu ànd ak yow déedéet maa ngi ak sama xel maa ngi sama conscience détermination la ànd si xalifa Alaaji Muhammad léegi nag ñu dugg si ñaan yi ñu dugg si ñaan yi ndax léegi kii bi jot maire bi ma wax ko ne ko sa Dakar sa buun ne ko maire dama tëdd jóg rek ne ko maire mu ne ma ne ko ah, Abdoulaye day de maire bi ne ma déet ñett ma ne ko dem jaay géej gi da nga ne wàcc <laughs> fekk boobu gis naa mag ñi fañ ne wax bay tàng naan faam leen turam sëppi yàlla ba bàkk si jax ma Tijaan ay yow euh, Guy bañ koy fal ba may yëg ne dafa falu damaa yeew rek wax gars yi ne la ah mag ñi nee nañ du jullit de waaye li muy liggéeyal doomu mag ñi gërëm nañ ko de bàkk si jax ma Tijaan yooyu tax ñu fee ñuy wax waaye kon danaa leen may yoo xam ne cinq minutes yoo xam ne da ngeen di wax seen soxla ma koy wax sama tooma mu koy wax Seexu Tijaan mu koy wax yonent bi yàlla faj ko mu neex la ak mu naqari la kooku moom cinq minutes wala sept minutes balaa may joxe micro bi ku am soxla bëgg yàlla faj ko Sarr jotoon ngaa mos <laughs> maa ngi ñaan ci doole yonent yàlla Muhammad si doole Seydi Ahmada Tijaani yàlla na yàlla def milliardaire am xalifa laaj ma ku ne jaar nañ fa yàlla na yàlla yokk bis ni ki tey yàlla yàlla bind salawul mahfuus Maalaaji Abdoulahi Niass Maalaaji Abdoulahi Niass maa ngi lay ñaanal doon sama rakk nangul ma lool yàlla yàlla faj sa aajo waaye sa àddina nu suukar neexee yàlla ko yàlla neexale sa dund te yàlla ah yàlla ko ay incha allah léppam pare na dal na rek sa lépp pare na garanti na ko waaw yàlla yàlla faytaal loolu li ñu doon sas yàlla la yàlla yombalal ma ne oto balaa déwén yàlla la ko yàlla jox yàlla yàlla faj sa aajo ci yàlla la yàlla defal yokku yàlla la yàlla defal kaaraange yàlla yàlla faj sa aajo ñëw leen ngeen yàlla la yàlla yokku